bismillahi rahmaani rahim ñu sant yàlla ñetti yoon wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin nag ku santul da xarab te suñu borom boo ko ñaanee mu may la wax dëgg neex yàlla da war a sant boo ñaanaatee mu dolli la kon ñun ñi nga xam ne ñooy ndaw yi ànd ak président de la république sant nañ suñu borom bu baax a li ñu koy sant nag ren rek la mooy dañ ko ñaan président bu baax pour le Sénégal président boo xam ne day émerger loo le Sénégal muy le président Macky Sall mu may ñu ko kon ñuy sant suñu borom di ko ñaanaat nag ñaanaat gi mooy nañu dolliwaat ci président de la République balaa may wax benn mot de bonheur boo xam ni par rapport à la région de Dakar parce que du département de Dakar laay wax mais je parle au nom de la région de Dakar muy cinq départements yi nga xam ne ñoo constitué la région à savoir le département de Kër Massar bi nga xam ne moo mujjee juddu le département de Pikine le département de Guédiawaye le département de Rufisque mais aussi le département de Dakar bi nga xam ni fi laa dëkk may wax ni ñoo ngi dalal ñëpp ak fu waay mën a jógee ci Sénégal ñu ngi dalal ñëpp di rafet rafetlu initiative mi yi nga xam ne nag gàcce ngaalaama lu waay man di góor mën ko jigéen mën na ko suñu sœur honor suñu sœur DG Thérèse Faye Diouf jël ko ñun ñëpp ñu ànd ceeg keroog dafa am ku ko wax ni ka gaynde nga waaye bu heure boo jugee ay gaynde ñooy jug ànd ak yow ndax muus nag du ànd ak mukk ak gaynde gaynde rek mooy ànd ak gaynde kon encore une fois ma sœur Thérèse Faye sama wax du ci yow mais li ñu ñor mooy le président de la république bépp ndaw bu fi ñëw képp koo xam ne mobilisé nga képp ko xam ni jël nga fi parole lépp li la intéressé mooy le président de la république ñu falaat ka en ndax nag werantaw ñu ni ñun le président ki Sall mooy suñu candidat may wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wara na mën a gudd waaye wax ji fii la mën a yam merci beaucoup merci ku nekk deux minutes rek lay wax Madani La politique du Sénégal la croisée des chemins. Nous sommes appelés à faire un choix entre rester dans la dynamique d'un Sénégal meilleur, d'un Sénégal de tous et d'un Sénégal pour tous, ou bien confier notre pays, notre avenir et celle de nos enfants à des aventuriers puissants. ñu wax ne responsabilité de notre pays parce que kenn ku ne nag xam na ne nous vivons dans un monde boo xam ne difficile et l'homme de la situation c'est le président Macky Sall kon nag ñun la jeunesse de l'alliance pour la république ñooy taxaw tey gannaaw bu ñu gërëmee nga xam ne mooy coordinatrice PSE Diouf bi nga xam ne Macky pour 2024 bii moom si àndal di wax ne ndaw ñi lay l'économie bi ñuy wax au delà des réalisations du Sénégal lii nga xam ne fan yii dem muy 2024 il va de l'avenir de la jeunesse et cette jeunesse responsable a compris que le président Macky Sall moom moo baax ci Sénégal. jóge Fatick jóge Tamba jóge Diourbel jóge Ziguinchor. ànd ak suñuy rakk yi xam ñu ngi ci mouvement élèves étudiants républicains te suñu président la République Macky pourquoi le président Macky Sall parce que président Macky moo ànd ndox ci réew mi pourquoi le président Macky moo defal yoon yu baax ci réew mi pourquoi le président Macky Sall moo fi andi bourse familiale yi pourquoi le président Macky Sall moo fi andi terre bii nga xam ne mu ngi seen wet pourquoi le président Macky moo fi andi BRT pourquoi moo fi andi li nga xam moom mooy stade Abdoulaye Nday Wade waa Tamba gërëm nañ leen pourquoi le président Macky Sall parce qu'il est le président de l'Union africaine te yàlla dogal na c'est le meilleur à la de l'Union africaine ci la xalaat ne Afrique mun na bokk ci G20 ci moom la xalaatee ne tey néew di doole mun na toog di faju hôpital weer mu ci am juróomi junni tey mu yokk ko muy juróom ñaari junni donc président Macky Sall képp ku ko gis tey xam ne bu fi nekku doon réew mi dina am nu mu demee ci safaan ba waaye nag taxaw na pour li nga xamante ne mooy jàmm ci biir réew mi gën a sax taxaw ne li nga xam ne ñuy dëgëral institution mu gën a sax moo tax ñun ndaw ñii jóge fu nekk ñu ne duñu bàyyi benn xale buy jàng politique benn populisme wala kenn ko nangu wala kenn koo xam ne wala kenn koo xam ne au moment où benn xale di la woo ci procès au moment ay étudiants di la laaj ñu fayal leen seen loyer au moment où Ziguinchor gis nañu na mu mel ñuy prôner la violence dans ce pays ñun cette jeunesse nous demandons au peuple sénégalais ñu gën a yeewu gën a xam ne que intérêt Sénégal c'est avec le président Macky Sall jàmm réew mi c'est avec le président Macky Sall l'émergence de ce pays c'est avec le président Macky Sall képp ku jóge ci gox gërëm nañ la sant nañ la ñu leen di wax ne leen di bàyyi ak suñu artiste Pape Diouf foog naa ne que ñu bàyyi Salif Faye dem. Macky Macky Macky Macky